ñoxor lay tey moom dama bëggoon nga wax ma lan nga jot a jàpp ci lii ma la wax ci seydina limaamu salallahu alayhi wasallam seydina limaamu lay mooy rasul lay alayhi wasallam akhlan mama mama amul photo dëgg la ak lan fii nii nii fii nii la Mata mooy nii ci gi très bien ma la ci def na fi lu ëpp téeméeri at te géej gi sañu ko laal ak lan nee naa nee naa euh, bu ma dugg lu sama yoon nekkul très bien ñoxor lay ak lan nee naa ma tooñ ma baal ko te man bu ma tooñ kenn excellent ak lan lu mu waxati woon sax waaw nee bu ma laal lu ma lu ma moomul ah ñoxor lay dëgg-dëgg jàmbaar nga eh eh nee na tamit nettali baaxul waaw loolu lu jar bàyyi xel la ndax lu bari lu yàqu ci àdduna bi làmmiñ am na ci wàll te lu ëpp ci li ñuy nettali ak lii am bokkul kon boog jëf ñoxor lay léegi nag dinaa laaj sa papa xool ndax yaa ngi def lii la bàyyi lay sallallahu alayhi wa digal xam nga suba la appel bi nga man damay dem de waaw waaw waaw dinaa la yóbbu incha allah waaye balaa ngaa dem nag xanaa di nga tàggu sa moroomu xale yi wax leen bàyyi bàyyi ba déwén incha allah waaw xaruma leen bye bye bye bye bye ni rasulullah